asalaamaaleykum dal leen ak jam kuréel bi nga xam ne nag dafa ëmb ñu fare ci société civile te nga xam ne leen rek leen soxal mooy ñu jëmmal li tukkee woon ci waxtaanu yaatu yi nga xam ne moom lañ duppee assise nationale diggante atum 2008 jàpp atum 2009 ak i ndénkaane yi nga xam ne ñoo bawoo ci kuréel bi nga xam ne moom la ñu dénkoon ñu saytu coppite yi nga xam ne moom lañ namm ci wàllu institution du CNRI te ñu amaloon ko ci atum 2013 kuréel yooyu la nag bu ñu sukkandikoo ci ëttu yéenekaay bu groupe Communication du Sud Quotidien li leen ëlëm nag fi mu toll nii mooy taxawaay ñu ngonk réew mi fi mu toll nii ci wàllu yorin wu sell ngir gën a ñoŋal suñu démocratie démb ki seen jàkkaarloog taskatu xibaar yi kuréel googu nag mi ngi fàttali digge yi nga xam ne moom la fukki candidat ak ñett yi sampoon seen ndënd ngir xëccoo bopp réew mi amaloon te ñu xamle woon na danañ def seen kéem kàttan bu ñu leen falee ci bopp réew mi ñu jëmmal loolu le ci at bu njëkk ci seen mandat ñu des kuréel lee ak waa bés bi le jour ñuy fàttali nii président Bassirou Diomaye Faye bokkoon na ci fukki candidat ak ñett yooyu nga xam ne ñoo siifee woon boobule déggoo moo tax it téeméeri fan ginnaaw gi mu nekkee ci bopp réew mi nag ñu ngi koy fàttali bu baax a baax boobule diggee Mamadou Ndoye ak ñim ci àndal ci boobule kuréel li leen ci gën a jaaxal nag mooy tekki tekkaaral bi nga xam ne moom la njiitu réew mi amal jëmale ci ci ñaari bataaxal yi nga xam ne moom lañ ko yónnee woon samp nañ it yeneen laaj li nga xam ne mooy wàllu boobu boobule ak wàllu assise nationale di waxtaanu yaatu yi dañoo seetlu ne kilifa yu yees yi waxtaane tuñu ko te nag ci yi élection yi du doon jug seen làmmiñ benn yoon dañuy des ak njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Faye ba tey si biir Sud Quotidien ñuy waxtaane nag birub concours général bi nga xam ne moom lañ doon amal démb ci Grand Théâtre National du Doudou Ndiaye Rose téeméeri ndongo yi gën a ràññeeku ci Sénégal la ñu jox téeméer ak fukk ak ñaar ci ay raaya président Bassirou Diomaye Faye sax nag jël ñeenti téeméeri millions yu teg fukk ci kopparu CFA jagleel ko concours général bi suñu naataango bi dellu na it ci digg yi nga xam ne moom le président Bassirou Diomaye Faye def ngir kanam bu yees bu école bu Sénégal jëmale ci gën a méngaleeg jamono jumtukaay yi wàllu recruter yeneen kat ak ci tàbbil wàllu xarala yu yees bu baax a baax ci biir njàng meeg njàngale mi ak moom la ñuy des moom président Bassirou Diomaye fay ndax ci feet boobu nga xam ne dañ ci doon sargal ñi gën a xarañ ci wàllu njàng ci at mii ñu ñu bàyyi xel lañu ndax yéenay siggil l'école Sénégal président dafa bëgg gën a ñoŋal wàllu njàng meeg njàngale mi bu ñu sukkandikoo ci bés bi la jour muy dellu si bu baax a baax ci programme bi nga xam ne mooy tax ba ñu recruter ay enseignants yu bëree bëri ci suñu réew leneen loo xam ne it soxal na ko mu xamle ko démb mooy ñu fexe ba gën a ñoŋal njàng mi ak njàngale mi jëmale ci wàllu science ak mathématique bés bi la jour di ñu fàttali ni Zeynab Diène Samb bu Racine Cool bu Guédiawaye ak Ahmed Bachir Touré bu Prytanée militaire ñoom ñooy ndongo yi nga xam ne ñoo gën a ràññeeku ci atum ren bilee le soleil nag moom dañuy fàttali ki nga xam ne moom lañ bàyyile woon mbiri di professeur Mamadou Sankaré ku am tur la te roykaay la war a doon ci wàllu mathématique ci wàllu jàngale mathématique boobu la ñuy des ndax waa l'info ñu ngi xamal ne njiitu réew mi bu sañoon ñu gën ko ñoŋal muy fàttali ni adduna bi ñu nekk adduna xëccoo la te loolu yëpp nag sukkandiku ci xam-xam jaarale ko ci matière scientifique yi ak it wàllu xarala yu yees yi moo tax waa yor yor bi ni président Bassirou Diomaye Faye dafa fàtt fàttali ndongo yi ne dañoo war a fexe ba ŋànk li nga xam ne mooy science yi ngir mébét bi nga xam ne mooy mun a moom suñu bopp ci bépp fànn ñu mun a antu ci suñu réew dana gën a ñoŋal FASTEF ak UFR bi nga xam ne moom lañ dénk wàllu njàng meeg njàngale mi wàllu tàggat ak it wàllu tàggat yaram dana it gën a bàyyi xel école yi nga xam ne fa la ñuy tàggatee instituteurs yi jiitu réew mi na ko soxal bu ñu sukkandikoo ci réew mi quotidien mooy gën a ñoŋal école bu Sénégal ngir woy bi nga xam ne moom la yàgg am dara bañ kaa soppi laas ak waa Sud Quotidien nag di ñu waxtaanee mbirub Amadou Ba ginnaaw Touba dem na it ci Tiwaawan moo tax waa Sud Quotidien nii mi ngi gën a fësal ni dafa dogu jëmale ci langue politique bi ñuy xamle ne nag ginnaaw gi mu jiite ab délégation bu takkoo takku moom Amadou Ba ki ko dalal foofulee mooy Serigne Moustapha Sy di doomu xalif général kulli tijaan di Serigne Babacar Sy ak it koo xam ne moo yore kàddu njaboot gi di Serigne Habib Sy Mansour ci ginnaaw ga it xalif général kulli di Serigne Babacar Sy Mansour dalal na ki fi nekkoon premier ministre di Amadou Ba mu am ay ndénkaane yum ko dénk tekki nag ñaanal Sénégal jëmale nag ci wàccaayu màggal Touba bi waa laas yu ñuy xamal na démb ci ndaje bi nga xam ne moom la ñu amaloon te ministre bi ñu dénk wàllu biir réew mi jiite woon ko di Jean Baptiste Tine ki jiite comité d'organisation bi teg ci yore kàddu xalif général kulli murit di sëriñ Bass Abdou Khadre li xew ci Touba jëmale ci wàllu ndox mi moo ko métti bu baax a baax mi ngi soññ gouvernement bi mu def ci la war rawatina jëmale ci wàllu ndox mi ak it wàllu assainissement ci loolee ñi nga xam ne ñoo teewoon ci boobu la ndaje nag xam le ne dégg nañu ko bu baax a baax Jean Baptiste Tine di fàttali ne nag ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàll wi nag dégg nañu ne dinañu def seen kéem kàttan ba ñu bañ a am benn jafe-jafe jëmale ci wàllu ndox mi sapeur pompier ak waa eaux et forêt yépp ñoom it dañoo fas yéene def seen kéem kàttan ba jafe-jafe ndox ñu bañ ko am ci màggalu atum ren gi lee ëtt yéenekaay ñu xëyee ndool bu ci mel ni laas di xam le ne nag Ahmed Suzanne Camara fanaan na guddeem bu njëkk ci biir kaso bi li ko fa yóbbu nag bokk na ci ñàkk jox wor ma kilifa réew mi ci wàllu jeux olympiques yi ñuy amal ci Paris nag le soleil mi ñee xamal ne Yves Bouris ci canoë kayak ak Mathia Seye ci wàllu fey ñoom ñaar ñëpp éliminé nañ leen ci préliminaire yi ñu des ak Mathia Seye ndax mi ngi baalu bu baax a baax askanu Sénégal ñu des ci jeux olympiques yooyu ñuy amal ca Paris ak waa SAD waxtaane nag wàllu football di xam le ne Maroc ak Égypte ñoom qualifié nañu quart de finale yi ci wàllu basketball nag tey jii ci ngoon dina am jongante gu am solo ci diggante États-Unis ak Soudan du Sud lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool ñu yendoog jàmm Bonjour. Les membres de la société civile regroupés autour du collectif des mouvements engagés pour l'application des conclusions des assises nationales ainsi que des recommandations de la Commission nationale de réforme des institutions s'interrogent autour du flou qui entoure la volonté du nouveau régime d'honorer son engagement à mettre en œuvre le pacte de bonne gouvernance démocratique, un contrat social articulé autour des conclusions des assises des recommandations de la CNRI face à la presse hier, mardi 30 juillet, Sud Quotidien renseigne que le dit collectif a rappelé que les engagements pris par les 13 candidats à l'élection présidentielle consistaient à traduire les principes, valeurs et objectifs du pacte en plan d'action à réaliser dans le courant de la première année de leur mandat, rappelle le quotidien du groupe Sud Communication, selon qui la société civile, presse, Diomaye, restons avec ce collectif qui lui rappelle cette promesse après cent jours au pouvoir avec Bospi le jour, qui signale que Mamadou Ndoye et ses camarades s'interrogent sur l'absence de réaction du chef de l'État à ces deux correspondances, même s'il reste encore compréhensif au vu des enjeux. Et le collectif toujours de s'interroger pourquoi les mots pacte et assises nationales semblent bannis du discours des nouvelles autorités alors qu'ils foisonnaient dans leur message de la période préélectorale et pourquoi les nouvelles autorités n'invitent pas le collectif à leurs initiatives de dialogue sur les sujets qui le concernent à l'instar de celui initié sur la réforme de la justice. Restons avec le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye, général. Comme chaque année, le Grand national d'Oudou a accueilli cette traditionnelle cérémonie. C'était hier, mardi À cette occasion, 100 élèves se sont partagés 112 distinctions et le président Bassirou Diomaye Faye a offert 410 millions de francs CFA au concours général sur la modernisation des infrastructures scolaires, la digitalisation intégrale du système éducatif, le confrère de l'avenue Bourguiba revient en détail sur les promesses de Diomaye pour le renouveau de l'école. Le président Bassirou Diomaye qui lance au lauréat ce qui suit, vous représentez ce que le système éducatif a de meilleur à offrir et le soleil de rappeler que l'école publique maintient sa domination. Au moment où dans les colonnes de Bossible le jour, le président Bassirou Diomaye veut un meilleur tableau Il annonce un programme de recrutement d'enseignants et souhaite renforcer l'enseignement des sciences et des mathématiques. Le confrère de rappeler que Zainab Diène Samb de Racine School de Guédiawaye et Ahmed Bachir Touré du Prytanée militaire sont les meilleurs élèves de cette année au moment où le soleil rappelle que le parrain de la cérémonie, le professeur de Sangaré, est présenté comme un modèle de dévouement dans le domaine des mathématiques. Nous étions tout simplement au banquet de l'excellence, intime conviction. de l'AS au moment où l'info détaille le diagnostic peu reluisant du chef de l'État concernant l'enseignement des sciences et des mathématiques. Notre pays a un besoin urgent de renforcer cet enseignement afin d'accroître considérablement le nombre d'élèves dans les filières scientifiques, selon le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye. Et d'après lui, dans les colonnes de Yor Yorbi, il faut maîtriser les sciences pour conquérir les souverainetés. Le chef de l'État a promis de renforcer le rôle et la place de la FASTEF, de l'UFR, des sciences de l'éducation, de la formation et du sport, ainsi que des écoles nationales de formation d'instituteurs, nous dit Yor Yorbi. Et pour Réumi Quotidien, le président Bassirou Diomaye prône un repositionnement stratégique de l'école sénégalaise. Intéressons-nous à la visite de courtoisie à Tiwawan après Touba de Amadouba, qui, selon Site Quotidien, tisse sa toile. Accompagné d'une forte délégation, l'ancien chef du gouvernement a été accueilli par Serine Moussafasi, fils du Khalif. Serine Babakar Simonsour est l'un des porte-voix de la famille Serine Abib Simonsour. L'ancien premier ministre a ensuite eu un long tête à -tête avec le Khalif. Le président du comité d'organisation du Grand Magal de Touba a assisté hier à Dakar à une réunion nationale consacrée à l'événement. D'après l'AS, dans son message, Serigne Bass Abdou Khadr a rappelé à l'État l'urgence de trouver une solution à la montée de la nappe phréatique qui constitue une bombe écologique, une bombe qui, selon le porte-parole du Khalif général des Mourides, risque d'exploser si rien n'est fait. Et à l'issue de la réunion nationale consacrée la préparation du Magal ministère de l'Intérieur, avec les sectoriels, a retenu le problème de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. Et sous ce rapport, selon le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, des engagements fermes ont été pris par les services concernés afin de minorer les désagréments lors du Magal. Et par ailleurs, pour l'approvisionnement en eau, les sapeurs-pompiers et les agents des eaux et ont été également mobilisés pour cette édition. Au renseigne que déféré vendredi dernier par la sûreté urbaine pour offense ou discrédit sur les autres autorités de l'État ou incitation des citoyens à enfreindre les lois Ahmed Suzanne Kamara a été placé sous mandat de dépôt hier. Le juge d'instruction du troisième cabinet, Augustin Fay, a ainsi suivi le procureur de la République dans son réquisitoire introductif. Jeux olympiques Paris 2024, Yves Bourris en canoë-kayak et Mathieu Sey en notation ont été éliminés en préliminaire, constate amèrement le soleil. Et Sud Quotidien de donner la parole à Mathieu Ousmane Sey après sa défaite en série. Il déclare « Je ne suis pas déçu, mais je voudrais auprès de mes compatriotes sénégalais. Restons avec ces JO 2024, le football notamment, avec le Maroc et l'Égypte en quart d'après Stade, le quotidien du sport, qui s'intéressant au basket rappelle l'affiche de ce soir États-Unis, Soudan du Sud. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.